li fekk mbokk yi jeexut doomi mbokk yi jeexut bul tudd baay bu ndaw boo gisee bu fekkee gisoo nag menn mbokk gisoo menn doomi mbokk nag nga tudd baay bu ndaw nag baay bu ndaw itam nga njëkkee ka bokk néew bi ndey ak baay caa teg ka bokk ak moom baay dong xam nga ka bokk moom ndey dong moom du doon xam ne doomi baay tax yax jubaxoo dana ko yiir abooxu baayam waman ak ka nga xam ne yax jubaxoo daana yiir baay bala ngaa tudd doomi baay bu ndaw day fekk gisoo benn baay bu ndaw maanaam baay bu ndaw day jeex bu bokk moom ndey ak baay ak bokk moom baay benn nekk fa nga door a seen doom nag nga bañ a fàtte jiital ka nga xam ne baay mag néew bi ñoo bokk ndey baay moo war a jiitu ka nga xam ne baay mag néew bi baay dong lañ bokk ndax gën gee jegante rek moom lañu topp wa banaatul ibni doomu jigéen doom bu góor yax jubu xun na dana leen yiir du kenn min dukkoori wala di sul bi ci góori doomi ndigg sul bu jigéen bàyyi ko doom bu góor la ne bu benn doom bu góor xasee am rek dal nañu daanu ci gàttal sax mën nga ne doom bu góor moom bu xasee am sët bu góor daanu na sët bu jigéen daanu na ci gàttal rek moom bu doom bu góor xasee am rek doo tudd benn sët waaw doo tudd benn sët lee mu ci teg nag moo tax mu wax ko mooy walis na taali ak ñaar façaa yi doon topp lu ko ëpp muñ banaati sul bi ci doom doomu jigéen yi ndigg ilaa an yekkoon rek bu dafa nekk maa na ànd ak ñoom zakarun góor fa yu xas yi bu xun na te mu leen di asabaaloo fa yekkoon nekk loxoo ñeel ko wala xun na ak ñeel leen maa la nga xam ne baqiya des na xan fardil banaati ci gannaaw cëru doomu jigéen ya li zakari ñeel na góor ga mislu xazdil unsayni kem cërub ñaari jigéen loolu isaala waxoon na ko maanaam daa waxoon ne bu fekkee ki faat daa bàyyi lu mat ñaari doomu jigéen digg baalu ko ëpp kon sët yu jigéen yi bu fekkee ànduñu góor duñu am dara xam nga daañu ko woon daañu kon wax ne bu nit faatoo bàyyi doom bu jigéen boo xam ne moo ko jural boppam bàyyi sët bu sët bu jigéen bàyyi ko doom bu góor kon doom bu jigéen mooy am genn wàll kim jural bopp muy doom bu jigéen mooy am genn wàll bu ko defee sët bu jigéen bàyyi ko doom bu góor tegg benn muy sudus mel ni boo ko defee juróom-benn xaaj li waral juróom-benn yi mooy sudus bi nga ci tudd moo tax boo ko defee juróom-benn xaaj ñett yi ngay dagg jox doom bu jigéen bu dëgg-dëgg nga benn jox sët bu jigéen muy sudus bu ëppee kenn tam ñu seddoo ko rek ñoom sët yu jigéen ñi da caa lu mel ni ne nag bu fekkee doomu jigéen yam yul yam jël boppam doomu jigéen digg yi mat na ñaar ba xas am sulusaani mu ñaari ceer su boobaa sët yu jigéen yi bu ñu ànd te góor duñu am dara dañuy ñàkk bu ñu àndee góor nag jël si la des daal di koy seddoo góor ñaar jigéen benn loolu kon mën nga koo jàppe ne boo defee ñett kon ñaar ñu mooy sulusaani moom doomu jigéen digg di jël des na benn muy sulus sulus boobu nag bu fekkee sët yu jigéen ñi ànd nañu góor dañu jël si benn boobu daal di koy séddoo góor ñaar jigéen benn mooy góor gi mooy ñaar ci la jigéen ñi ba duñ koy séddale soo ko defee juróom benn nag moom ñeent yi mooy nekk sulusaani xam ne ñu bokk ñu ñu jur dëgg dëgg muy doom jigéen digi ñeent yi la ñuy jël séddoo mu des ñaar ba tey ñaar yi mooy jigéen ñi bu ñu àndee góor jël ñaar yooyu séddoo bu fekkee ànduñoo góor duñu am dara rek noonu mooy gàttal wi wal axawaatu mbokk yu jigéen ñi lil abi ñeel wàllu baay yax jubu xun na dana leen yiir ak chaqiqu benn xarit liir bi bu xasee am ku bokk moom ndey ak baay tam yu góor mën ngaa jàpp ne ku bokk ak moom baay dong moom daan na moo xam góor la moo xam jigéen la waaye nag bul defee ne mën naa daaneel mbokkum day dong am ku bokkal ndey ak baay mënta tax loolu képp daal daan kam bokkal ndey dong kam bokkal ndey dong ci bi la woon bul ko fàtte bu dee kenn sulus lay am bu dee ñaar ñu bool leen sulus waaw loolu bul ko fàttee ki bokkam ndey baay mënu koo yër ba mu ñàkk loola waaye jàppal ne ku góor ku bokk ak néegu ndey ak baay bu xasee moom ku bokk moom baay dong daan moo xam góor la moo xam jigéen la wala moom moo gën a gaaw loolu seen nga ko takk li tax na mu tudd fi mbokk jigéen yi ci wàllu baay ne kenn ku góor ci ndey ak baay leen yiir mooy lee mu cee ka a teg mooy wa shaqiqataani ak ñaari xarit mooy ñaari jigéen ñu bokk néegu ndey ak baay loolu jublu ci shaqiqataani fàq sara topp lu ko ilaa an yakun rek bu dafa nekk maa na di ànd ñoom axun mbokk mu góor li abin ñel wàllu baay fa yu xas si bu xunna tamu leen di asaballoo fa yakun tey nekk loxo di ko ñeel wala xunna ak ñeel leen maa la nga xam ne baqiya des na xam faradil axawaati ci gannaaw cërub mbokk yi jigéen ya al ashiqa ya di ay xarit li zakari ñeel na góor ga mislu xadil untayni kem cërub ñaari jigéen bu fekkee ku jàngoon risaala la gisoon na ca lool daa waxoon ne ki faatu bu bàyyee mbokk mu jigéen moo xam ne ñoo bokk ndey ak bàyyi muy kenn kon day am nisif nga bokk moom baay dong tey jigéen nag bu dee kenn mbaa mu ëpp kenn mu jël sudus bu dee kenn mu jël sudus bu dee ëppee kenn ñu jël sudus ba seddoo waaye tegaatoon na ci ne ñu bokkoon ndey ak baay bu ñu xasee mat ñaar mbaa ñu ëpp ko ba jël sulusaani ña bokk ak moom baay tey jigéen bu ñu ànd góor dañuy ñàkk àndee góor nag daal jël si la des daal di koy seddoo góor ñaar jigéen benn ne sët yu jigéen ñi defoon bu ñu àndee doomu jigéen liggéey rek noonu la mbokk jigéen yi ci wàllu baay di ñu bokk moom day baay tey jigéen ñoo bokk defin wi xam ne ka fa nekk bu dee kenn doŋ du yàqal kee ab dono muy sudus waaye bu xasee mat ñaar rek moom moomee nga xam ne sët bu jigéen la bu dee ci booga wàll wala bu dee fii nga toll bokk jigéen la ci wàllu baay moom su ànd góor daal di ñàkk bu àndee góor nag la des moom lañ jël séddoo góor ñaar jigéen benn wala axawaatu mbokk jigéen ya al ashiqaa ay xarit yax jubuhunna dana leen yiir al abu baay wal ibnu ak doom bu góor wabnuhu ak doom bu doom bu góor loolu daanaka ak baamu la ndax dañ laa waxoon léegi ne la mën ngaa takk ne bu fi doom bu góor nekkee mbokk yëpp daan ne amul meeg maa bu fi sët bu góor nekkee mbokk yépp daan ne bu fi bàyyi yëpp daan ne moom nag léegi mu beral la fi ne la mbokk yi jigéen yi bokk ne bu ndeeg bàyyi bu fa bàyyi nekkee daaneel leen bu fa doom bu góor nekkee daaneel leen professeur bu nekkee daaneel leen waaye takkal rek ne moom daal ñett ñi mu wax moom bu ñu fi nekkee ku fi mën di nekk ci ñoom rek mbokk yépp daanu muy ñi ak ñeneen a ci am moom ci gàttal wal jaddaatu maam yu jigéen ya min ay ci gumu ci wàllu kunna lañ nekk bil ummi danañu daanoo ci ndey waaw lu ci mën doon daal bu fekkee ne yaay yaayee ngi fi maanaam ki jur mi ngi fi rek maam jigéen yëpp daan nañ men maam jigéen du doon jàppal ne bu fi yaay nekkee maamu jigéen ma jur yaay daanu na maamu jigéen bu jur bàyyi daanu na waaw fu yaay nekkee daal mel ni maamu jigéen di doon nati rek yaay doon mooy gàttal bi wa tasxutu dana rot aljaddatu maam bu jigéen ma allati mi nga xam ne min jihatil abi tukkee ci wàllu baay bii ci amuk baay bu fàtte prime bii bii ci amuk baay ci nekku baay jigéen mi nga xam ne ci wàllu baay la féete maanaam moo jur sa baay daal bu fi sa baay nekkee rek moom maamu jigéen ma day daanu du am dara fi bàyyi nekkee daal maam mu jigéen mu jur bàyyi du am dara wal mawla ak xewle ngor al mootiqu kay aj goreel yaxjubuhu dana ko yiir xasabatul nasabi way asabaali askan wa mbaa nga ne geñog askan wa ki xewle ngor yooyu jamono jaam dafa amoon ñu waxoon la ne la koo xam ne ngaa goreel ab jaam lay gor la ne yow waaye na bu génnee àdduna mooy bu faatoo te amul kenn ko war a doon yaay doon alalam mu wax la fi ne la bu xasee bàyyee ñu jeex ñu mën a jeexal alal nag yow mi gore yow mi gore loon doo am dara waaw ndegam yaa gore loon waaye moom bàyyi nañu ko mën a jël alalam ba mu jeex mel ni bàyyi na doom bu góor mbaa sët bu góor mbaa mbokk góor mu dee bàyyi mbaa mbokk mu góor mu bàyyi seen doom mbaa bàyyi bu ndaw mbaa maam ju góor wala maamaat ju góor ñoo ci ñoo ñëpp xam nga ne ñoo jeex alal bu fi kenn ci ñooñu nekkee rek yow mi gore loon doo am dara fekk fekkee bàyyiwul kenn kenn ko war a doon yaay jël lépp bu bàyyee koo xam du jeex alal nit ki doom bu jigéen bu jëlee genn wàll nga jël la ca su bàyyee ku mel ne soxna soxna jëlee ab kaar ci yooyu jamono nga jël la ca des waaye nag bu bàyyee koo xam day jeex alal moom doo am dara. wa amma xaj bu naqli daal di toxal fa talaatatu aqsaamin ñetti xaaj la al awalu bu njëkk bi naqlul mooy toxal min fardin tukkee cib cër ila fardin jëm cib cër doona woo nekk ne di ko yees. waxu moom muxtasun luñ jagleel la bi xamsati asyaa ak juróom yëf nee na genn yër gi nga xam ne moom mooy jële ko ci cër ba ëpp yóbbu ko ci bu tuuti moom nee na juróom yëf yi ci la aju al ummu ndey al ummu ndey mooy kenn ka yan xuluhaa dana ko toxal al wala du doom mutlaxan ak lu doom doome mine tulus yi bàyyi ko ci tulus illa sudus yi jëm ci sudus nee na say boo tudd ndey ndey cëram bi gën a doon ci miraas mooy sulus ab ñetteel la ko ciy jëlee nag mooy benn doom wala sët moo tax teg na ci sax wala du ibni ak doomi doom mutlaxan ak lu mën di doon nga dool ci walis naa ni ak ñaar fa saaxi dañ topp lu ko ëpp leen ixawati ci ay mbokk hmm, ndey moom cëram bi gën a doon ci miraas mooy ñu def ñetti xaaj mu teg ca benn la ko ciy jëlee nag yóbbu ko ci sudus te sudus mooy xaajub sulus sudus mooy juróom-benneel moo gën a néew loo ko ci yóbbu nag mooy bu doom amee moo xam góor la moo xam jigéen la wala sët am moo xam góor la moo xam jigéen la wala lu mat ñaari bokk am lu mat ñaari bokk moom bu amee donte duñ doon sax du tey ñu yàqal ndey sulus bi nga waxoon daal di ko yóbbu ci sulus ab juróom-benneel waa tax mu ne kon daa daan wutoon dangay wax ne walis naa ni ak ñaar fa saa yi dañ topp lu ko ëpp minal ixawati ci ay bokk yu góor wal axawaati ak ay bokk yu jigéen mutlaxan luñ mën di doon foofu la wax bi daanoo day wane ne lu mat ñaari bokk bu fi nekkee dana yàqal yaay sulus bi ko waxaloon moo xam bokk yi dañuy góor moo xam dañuy jigéen moo xam dañoo bokk néew bi baay moo xam dañoo bokk ak moom baay moo xam dañoo bokk ak moom yaay kon ndey rek nga waxagoon nga dolli ca was zawju jëkkërit yan xuluxoo dana ko toxal al wala du doom du duhoo ak doomam moom doom doomi doom lu bëgg wax minul nis fi bàyyi ci genn wàll ila rubu jëm ci kaar xam nga jëkkër cëram bi gën a doon mooy genn wàll la ko ñuy jëlee nag mooy bu doom amee mbaa sët moo xam doom ji góor la moo xam doom ji jigéen la lu ñu ci mën doon dana ko daal toxale ci genn wàll ga andi ko ci kaar kaar na mooy genn wàllu nisif mooy nga def ñeenti xaaj mu teg ca benn wa zawjatu soxna it yanquluha dana ko toxal min rubuhi bàyyi ko ci rubuhu ila sumuni jëme ci sumun man ka nga xam ne yanqulu daana toxal az zawji jëkkër kalaa toxal jëkkër mooy doom ba sët ba tey mooy toxal soxna ci cër ba gën a doon te mooy kaar yóbbu ko ci cër ba gën a néew mooy tumun mooy jàppal ne soxna bu doom amut sët amut foofu lay ëppalee ab kaar lay am waaye bu fekkee doom am na ba sët nag day wàcc ba ci tumun sumun nag ab juróom-ñetteel la mooy xaaju kaar wa banaatul ibni doomu jigéen doom bu góor yan xulu dana toxal alwaahida te benn min na ci ñoom xan nis fi jële ko ci genn wàll walis na tey dana toxal ñaar fa ak sara topp ko ëpp xani sulu sëy ni jële si ñaari sulus ka koy ka koy def mooy alwaahidatu benn bu jigéen fawqa hunna bu nekk ci seen kaw su boobaa nag fay na danañu jàpp ak sudusa sudus dafa wax ne nee nga woon sut bu jigéen bu dee benn ak muy ñaara ci yemoo da nga ne bu dee benn genn wàll am nga ne woon bu ma tey ñaar mbaa ñu ëpp ko daañu am sulusaani waaye loolu lépp da nga ciy boole ne bu fekkee doom bu jigéen xas na am rek da leen di génn ca nisf ba nga waxoon bu dee kenn ka jële ñaar ñu baalu ko ci sulusaani yóbbu leen ci sudus ak juróom-benneel xam ne jàppal ne kon doom bu jigéen digg amee na nga ko ci gannaaw sut bu bu dee benn sudus lay am biñ dee ñaar nga xam ne bu fi jigéen di nekkutoon mais bu fi doom bu jigéen nekkutoon daañu am sulusaan itam xamal ne kon léegi ndegam doom bu jigéen am na kon ñoom léegi sudus képp lañ leen di boole ñu seddoo ko yem ja <laughs> wal axawaatu mbokk yu jigéen ña lil abi ñel wàllu baay yan xulhunna du leen dana leen doxal ila si jëme ci sudus al uxtu mbokk mu jigéen ak shaqiqatu ma di ab xarit xam nga da nga ne woon mbokk mu jigéen mbokk néew kenn day am nisif bu ñaar mbaa ko ñu boole leen sulusaani waaye loolu lépp day fekk ne mbokkum jigéen ndey ak baay nekku fa su mbokkum jigéen ndey ak baay amee tey menn moom mooy jël nisif ba su ko defee mbokkum jigéen ma ci wàllu baay bu dee benn boo pee kenn ci am sudus ab juróom-benneel lay jël te waxan nga ko ci gannaaw al qismu xaaj ba ak taalisu bi aji ñetteel naq naqlu mooy toxal min fardin bàyyi ko cib cër ila taasibin jëm ci asabal yena xaaj ñaareel bi ñu waxoon ni jërug toxal la moom da koy jële cib cër mu bàyyi cër ba léegi day xaar aw des xam ne lay amatul cër wa huwa moom muxtasum luñ jagleel la bil banaati ci doomi jigéen ndigee wa banaati ibni ak doomi jigéen doom bu góor wal ak mbokk yu jigéen ya al ashiqa ña di ay xarit wal axawaati yu jigéen ya lil baay maanaam toxale kenn cib cër yóbbu ko ci léegi xaaru des la wax ne moom ñii mu la wax rek ñoo koy def doomi jigéen yi benn sët yu jigéen yi ñaar ñeeni bokk néeg bi ndeeg baay ak mbokk yi jigéen ji warul baay ñooñ ñooy war a def loolu mu lay wax mu teqale ko fa innal banaati naka doomi jigéen digg ya yufradu def na dogal lil waahidati ñeel benn min xun na ci ñoom idan faradat ndem wéet na an nisfu genn wàll walis na tey ni daañu dogalal ñaar fa saa idan topp ko ëpp ak tulutaani ñaari tulus te wa ida kaana ndem nekk na laxun na di leen ñeel axun mbokk mu góor lam yaris na kon duñu donnati bi sihaa bi ci ay cër wa yaris na danañu donne bi tensi bi ci asobal rek nee na ci misaal doomi jigéen digg yi da ne woon bu dee benn genn wàll lay am su ma tee ñaar mbaam ëpp ko ñu jox leen su lusaani ñu seddoo kon loolu xam nga doon ci cër la mu ne waaye loolu lépp nag mooy bu fekkee góor gu ñu amal daraja dafa nekkut su fekkee góor gu ñu amal ji nekk na fa maanaam daal ci gàttal doom bu góor nekk na fa ak ñoom rek donte kenn la loolu day soppi ko dañu daal tàmbalee bu dee ñoom dong ñu jékki-jékki séddoo góor ñaar jigéen benn bu fekkee nekk nañ fa ak boroomi cër ñu bàyyi ba cër yi génn ñu séddoo ci des góor ñaar jigéen benn nga xam ne kon góor gu ñu amal dara ji bu fa nekkee daal leen toxali ci cër yi yóbbu leen ci xaar aw des wala bu dee ñoom dong ñu jekki jekki seddoo góor ñaar jigéen benn wakasaaniki ni xukmu banaatil ibni atteb doomi jigéeni doom bu góor idastaxaq xëy na ndem yeyoo nañu alwirasatu doon ba tey neen léegi nga waxoon léegi ci doomi jigéen yi moom ngay waxaat ci sët yu jigéen yi xam nga sët bu jigéen bu dee benn daa war am genn wàlla su dee ñaar mbaa ëpp ko waaye jigéen dong lañ ñu am sulu saani seddoo ko yem ca mu ne loolu nag bu fekkee góor rax na ca maanaam sët bu góor am na rek bu war a doon day di ànd ñoom ñu seddoo góor ñaar jigéen benn bu ko defee nag cër yi nga waxoon daal deñ ba tey wal axawaati ak mbokku jigéen ya ak ashiqaa yi ña di ay xarit wal ak mbokku jigéen ya lil abi ñeel wàllu baay maxa ànd ak ñàkk ay xarit ba tey loolu ngay waxaat ci mbokku jigéen yi bokk néew bi ndeeg baay ak mbokku jigéen yi bokk néew baay dong comme ci mën doon rek bu fekkee ku mu yemal daraja ku góor am na fa da bàyyi la nga waxoon ci cër te bàyyi leen ñu seddoo góor ñaar jigéen benn ndax da nga ne woon mbokk mu jigéen bu ne menn na ak moom ndey ak baay genn wàll am suñu limoo daal doon sulusaani seddoo ko yem ci képp dangay wax ne foofu nag bu fekkee ne góor am na fu yemul ñoom daraja maanaam mbokk góor bokk néeg bi ndey ak am na rek loolu dañ na bu dee kenn boppee kenn yem ndegam goor am na dañu daal di bokk seddoo rek góor ñaar jigéen benn bu dee ñoom dong foo borom cër nekkee ñu génne cër yi ba noppi nag door a seddoo la des ñoom mbokk yi yu jigéen yi góor ñaar jigéen benn ba tey nga mbokk mu jigéen ci wàllu baay bu dee menn genn wàll la boo ëppee menn ñu bool leen sulusaani loolu wax na bu fekkee ne mbokk mu góor ne ñoom ci wàllu baay am na dañu daal di bokk rek sedd góor ñaar jigéen benn bu dee ñoom dong ñu jékki-jékki def loola bu fekkee ne dañ faa nekk borom jër ngay njëkk joxe jër bon ba mu des la des na nga leen jox ñu def ko noonu seddoo ko góor ñaar jigéen benn fas nun lii beneen dog la yem naaw dana tere almira sa donn ixtilaafu diini wuuteeg diine wuuteeg diine dañuy sàrt ci ñaar ñu wara a doonante ñu bokk jenn diine waaye bu ñu xasee wuute diine kenn du ci doon sa moroom ci kaw falaata falaa tawaaru sa deetul doonante bayna muslimin diggante julit wa kaafirin akub yéefar wala baynal yahuudi yi du caageen diggante ab yahuud wan nasraani yi akub nasraan nee na ak yéefar duñ doonante fekkee ne baay bi wala doom ji kenn ka day julit kenn ka yéefar kenn du ci doon sa moroom ak mboolem ñoor doon ñëpp rek bu kee dee leneen rek duñu doonante ba te yahood dañ koo jàppe diinay boppam nasaraan jàppe ko diinay boppam nga xam ne bu kee doonee yahood kee doon nasaraan kenn ci doonanteeg sa moroom lu bokk te yooyu yaar mañ ko jàppe benn diine dañ ko jàppe benn diine waaye yaar yi mu leen teqale yahood di diinay boppam nasaraan diinay boppam xam ne ku doon lee kee doon lee luñ doonante war ak njaam bokk na ci liy teree doonu ak njaam falaa yarisu du doonu ar raqiiqu ab jaam wala yuurasu te deefu ko doonu mooy jamono jaam amee ku xës nekk jaam moom ci boppam du doonu te moom ci boppam kenn du ko doonu mooy tey bu nit faatu woon bàyyi joo xam ne jaam la ak sëtam boo xam ne moom gor la sët bàyyi doon doom ju góor ji du doon ba tey su faatu woon bàyyi baayam boo xam ne jaam la ak maam ju góor joo xam ne moom gor la maam ju góor jaay doon waaye bàyyi ba du doon kon jaam moom du doon bu ñu nee jaam ci boppam deesu ko doon nag moom yomb na mooy ka ko moomoon moom alalam ba mu dund rek bu xasee faatu ba tey mooy moom alal jam bàyyi mooy ba maa loo xam ne maata faatu na moom jaam bi xan xu bàyyi ko gannaaw foofu ba moom li maalik yi ñeel na aj nga dolli ci wal xatul ak ko rey bokk na ci teree doon te fekk koo ko waroon doon rey koo xam ne kii daa rey ku waroon doon dañ koy xañ doon ba xam ne doon ba ñu ko xañ mooy fala miraasa déetu donn li ma ñeel koo xam ne xatala rey na mu war ni risahoo aji donn loom ja xam dañ ci tey xanaa koo xam daa fekk ka mu war a donn mu rey ko dañ koy wax ne ko yow da ngaa yàkkamti ba tax nga ku mel ne ni bëgg jël ab donn ko xañ ko ko benn yoon kooku du donn ci alal ja du donn ci dee ja bu fekkee dee am na bu fekkoon ne koo rey ngir njuumte nag moom dana donn ja alal di kese ja te bañ a ci dee ja wanti faa nasa bi ak dàqu askan wa billi xaani ci rëbbonte bokk na ci tere doon góor ak jigéen bu ñu rëbbonte ni ko daan jàngee ci buntu buntub nikaa waatoonte ci kanam yoon ba yoon teqale leen jeex na doom doomiñ amoon ca rëbbonte ga kenn ca doon sa baay sa baay du la doon xanaa mel ne jigéen ji bu fekkee daa ëmb bàyyam miim ko ne juruma ko ñu taxaw ci kanam yoon mu waat ko soxna saytam waat dañ leen teqale faaw bu ko defee doom joojee nag yaayam rek lay doon waaye du doon baayam mooy fayan xatixu dana dog ak tawaaru su doon nante ga benn la mulaaxini diggante aji rëbbonte ju góor ja mooy jëkkër ja wala wala ji ak doom ja faqat doom diggante jëkkër joojee ak doom ji rek moom la ñu ñuul doonante waaye doom ji ba tey dana doon yaayam yaayam dana ko doon moom doom ja wasti bu xaamul mutaqaddimi ak lëmut kan mooy aji jiitu wala mutaaxiri ak kan moo di aji mujj fil ca faatu ga kama ida maata ni dem faatu na aqaaribu ay jegeñaale taxta hadmin ci ron màbbuk tabax masalan ci misaal waaw nee na day aajowoo ñu xam kan moo njëkk a faatu ak kan moo mujj a faatu buñ ko xasee xam moom ka mujj a faatu day doon ka njëkk faatu waaye bu fekkee mënuñu koo xam nag nit dañoo faatu ci accident avion bu jekki-jekki daanu wala oto bu jekki-jekki def accident wala ni ko misaal tabax tabax jekki-jekki daanu ci seen kaw te fekk ñoom ñu waroon doonante kon bu ñu xamul kee moo njëkk faatu kee moo mujj faatu dañ leen jàppee rek ay jaamur kenn bañ taa doon ñoom ñu deexandoo moom kenn du ca doon sa morom ñoo ci bitti xam ne ñoom deexuñu ca nag déewandoo ñoom ñoom ñoo ñoo leen doon nag ku ca war a doon doon ci te ñoom seen diggante ñu mel ne jaamur ne bu amoon ndey ak ca biir wala ñaar ñu bokk ndey ak bàyyi day rek ay jaamur nañu kenn du ca doon sa morom bu ñu xamoon ne kii moo njëkk faatu kii mujj faatu nag moom kon daañu doonante foofu la buntu miraas yam dañ ko waxoon rek di amul genn jafe xëy na ki koy jàng bu ko nemmi ko bu baax rek dana ko mën bu baax a baax ci coobare yàlla albaabu lii mooy bunt bi alhaadiya hachara bi aju fukki ak benn na risaala defoon am benn bunt boo xam ne ci xaw a gàttal yu weetu yu weetu yëpp benn ki kii la def ci ak mujjalam moom daa aju ci fii bayaani jumalin ci leeral ay mbooloo minal faraidi ci ay farata wa sunani ak ay sunna wal aadaabi ak i teggeen daa bëgg a wax ay yenn farata ak ay yenn sunna ak ay yenn teggin waaye taxa yénu dana ràññi ko xalal muslim yi ci jullit ay yuminu mu gëm bi an allah ci naka yàlla ilaahun buur la waahidun bu di benn la sharika amul jenn aji bokkaali laxoo ñeel ko fii mulki ci nguuram gi wala nadira te déet ndend laxoo di ko ñeel fii sifatin ci wenn melo min sifaatil uluhiyati ci melo yu nguur neen ab jullit day gëm ne yàlla rek ay buur amul benn buur bu mooy melo yi mel moom yàlla moom rekk ko mel doon gi mu doon yàlla moom rek moo ko doon yàlla keneen doo ca fekk si wa yaalamu te muy xam ne anna li jamiil mawjudaati naka ñeel na mboolem mbindeef yi xaalixan aji bind joo xam ne moom waajibul wujuudi aji waruk am la leen day gëm mboolem lu am rek am na ku ko sàkk te kooka mooy yàlla te mooy ki nga xam ne ak amam mënta ñàkk bi ne waajibul wujuud mooy koo xam ne am nga mu am mënta ñàkk jaayisul wujjóot nag mooy mbindeef nga xam ne am gi mu am mën naa ñàkk yàllaa ko sàkk rek ci coobareem waaye mënoon naa ñàkk azaliyun ko jug la bi ñu ko jug la mooy tàmbali wutoon fenn abadiyun te ko jug dappet la dappet la mooy duyam fenn xayun te aji dund la bi xayaatin ci dund ga yàlla ca moom xaadirun tey aji attan bi xudratin ci kàttan ga yàlla ca moom muridun tey aji namm bi iradatin ci coobare ji yàlla ca moom aalimun tey aji xam bi ilmin ci xam-xam ba yàlla ca moom samihun tey aji dégg bi samhin ci dégg ba yàlla ca moom basirun tey aji gis bi basarin ci gis bu yàlla ci moom mutakallimun tey aji wax bi kalaamin ci wax ju yàlla ci moom nee na suñ borom amee na melo yoo xam dafa sax ci moom yi meloy mat te mënta ñàkk bokk na ci melo yi mat yi ci moom amee dund goo xam ne du yem fenn amee kàttan goo xam ne tëliwul dara amee sañ-sañ boo xam ne lu ko soob rek mu am te coobareem dong lay jëfee kenn mënu koo forcer dara du ko rëcc itam am amee xam-xam boo xam ne lépp la xam te xamee ko nam doone amee dégg ba yàlla ca moom amee jis ba yàlla ca moom ana ak wax goo xam ne mooy yàlla ca moom wa am na sifaat yi ak naka meloom yi ay dan ba tey waajibatul wujuudi aji waruk am lañu te taxallaqu danañu aju bi jamiil jusiyaati ci mboolem benn benn yi wal kulliyaati ak mbooloo yi wal mustaxilaati ak way jomb yi wa xayriha du yu ñoom nee na nga xam ne itam yàlla ni nga ne moom ci boppam mënta ñàkk ak amam mëntoon a ñàkk jàppale melo yi noonu la mel ay meloom melo yoo xam tàmbaliwul fenn déyam fenn ni jëmm mel rek noonu la ay meloom mel su ko defee melo yi nag booru njàng lu mel ne mu wax bil quddus dañ lay jàngal melo yi nañ ajoo ko defee yee dañuy aju fee ya aju fee ya aju fee am na ci yoo xam ne fépp lañ aju mel ne xam-xamam bi fépp la aju niki ci misaal xam na benn benn yi boo koy booy def mbir yi ay benn benn xam na mbooloo yi booy def mbir yi ay mbooloo xam na yi nga xam ne ñoo nekk waajibaat maanaam loo xam daa nekk waajib mënta ñàkk xam na nekk mustahil aji jomb mustahilaat yi yu jomb mënuñoo am xam na itam jaayisaat yi yi nga xam ne mën nañoo mën nañoo ñàkk xam ne xam-xam bi moom fépp la daj lu mel noonu mooy daj yëpp yëpp yëpp borom ci mawaaxil xudduus nañu ràññale melo yu aju fee melo yu aju fee wa annahu ak naka yàlla taxalaa kawe na waaxidun kenn la fii daatihi ci jëmmam la nazira déet ndend la xoo di ak naka moom laa yastaxiqu du yeyoo alxibaadata jaamu xayruhu kudul moom ab jullit day rek yàlla jëmmam ji jenn la rek mooy yooyu jaamu maanaam képp képp ku bokk te moom rek boo xam ne moo la sàkk wa anna jamiha rusulihi ak mboolem yonenteem ya salawaatullahi teral yàlla wa salaamuhu ak duli wóoloom alayhim yàlla nekk ci ñoom musaddaqoona ñu ñu dëggalal nañu fii maa ci la nga xam ne jaawu dikke nañu bi ci moom te damay gëm ne tam yàlla am na yonante yu mu sàkk yabal leen ci mbindeef yi te ñoom ñëpp dëgg rek lañu andi gu bàyyi koo fa yàlla wa anna muhammadan ak naka muhammad sallallahu alayhi wa sallam abduhu ab jaamama wa rasuluhu tey ab yonanteem wa anna ma wa anna jamihama ak naka mboolem la nga xam ne jaa adikke na bi ci moom xàqun dëgg la wa maa la nga xam ne itam axbar xibaar na bi dëgg la min xadaabil qabri ci mbugalu bàmmeel wa axwaalihi ak ay mbiram wal qiyaamati ak ak bispenc wa ahwaaliha ak ay tiitam wa min asiraati ak ci siraat wal misaani ak balaas ba wa jamiihil mugayabaati ak mboolem ya ñu fàddul mooy mboolem ya ñu làq xannaa ci noonu wal jannati ak ajjana wal naari ak sawara nee na boo gëmee yonante yi gëmaale nga Muhammad waaye dangay gëm ne Muhammad moom la yàlla mujj yónni ci yonante muy ab jaam di ndawam boo xam ne gannaawam di yónni keneen te lépp li mu indi lépp dëgg la lum nu xibaar loo xam ne suñ bët mënu caa teew itam kumpa lay dañ koy gëm rek moo xam de dee wala lu aju ci bàmmeel ak ay mbiram wala bis penc ak i tiitam mbaa siraat mbaa balaas ba ñu peese jëf yi ak mboolem yi nga xam ne ñoo làqu te wax te wax na ko ci alxuraan ba addis rek des ko war a gëm wal jànn ba ci àjjana ak sawara noonu wa annama ak naka la nga xam ne chaa soob na allahu yàlla kaanu mu am wa maa loo xam lam lam ko lam yakun am neen ab jullit day gëm ne lépp ci coobar yàlla wéy lu ko soob rek am lu ko soob du am wa anal imaana ak naka matu gëm intiqaadun mooy fas bil xol bi ci xol wa nutxun ak tudd bil lisaani ci làmmiñ wa ak jëfe bil jawaarihi ci cër nee na des war xam ne itam gëm balaa mat des koo fas ci xol bi waxe ko ci cër yi ma baamu mat des koo fas ci xol bi seere ko ci làmmiñ yi jëfe ko ci cër yi la mu laaj yett yi boo ko boolee moom sa gëm mat mu fasal gëm gi ci xol bi seeran ko ci sa làmmiñ bañ xam ne ab jullit nga nga taxaw temm nag ci li yàlla digle nga di ko def ngir yàlla lam aaya nga di ko sori ngir yàlla aay yooyu moom bu tasee rek ab jullit mat sëkk ngoo ko wa anna kalaamallaahi ak naka wax yàlla tax taxalaa kawe na qaa'imun aji taxaw la bi yi ci jëmmam mahfuudun tey lu ñu mokkal fi yi ci dënn yi maqruun tey lu ñu jàng bil alsinati ci làmmiñ yi maktuubun tey lu ñu bind fil masaahibi ci kaamil ya ab jullit day gëm wax yàlla yaar la ci tegtal maanaam bu ñu nee wax yàlla dëgg-dëgg je yàlloog moom moom ni mu umpalee jëmmam noonu la ko umpalee xam ne umpalee noonu la ko ak wax yàlla ji nga xam ne nag moom ay baat la yu ñuy jàng mu am ay maxnaa ñu di ko mokkal di ko jëfe mel ni alquran alquran baati arab la mënees naa wax ne wax yàlla ngir yàlla ci bopp moo sax baat yi jibril jibril saxaat ko yonante bi nga xam ne du yonante bi moo ko wax wax yi nu boppam xam nga yonante yu njëkk yi moom daan sa max naa ma ma ñëw ci seen xol ñu firee ko ci seen làmmiñu bopp nga xam ne baat yi seen baat la xam ne kon seen alxuraan yi màgg na waaye la ko tax màgg rek mooy max naa mu ëmb alxuraan yi ji nu yor nag moom baat yi ci boppam du bi moo ko waxal boppam ci fent dañ ko ko saxaar nga xam ne yokku ci wàññiwu ci waaye nag wax yàlla ja nga xam ne mooy waxam ja dëgg dëgg moom tuj boppam ja moom ni nga umpalee jëmmam rek noonu nga ko umpalee ndax waxam dëgg-dëgg amul dara lu ñu wax mbindeef nit ki araf wala kàddu wala tàmbalikaay wala yamukaay wala luy jëkk mbaa luy mujj mbaa dara lu ñu doon dégg wax mbindeef wa laa war nañoo fas naka yàlla tax laa kawen yaraaxu dana ko gis almuminoon way gëm ña wayu kallimuhum te muy waxante bokk na ci pas-pasu lislaam nga gëm ne ñu gëm yàlla daañu gis yàlla bu ëllëgee ni ñu gisee weer wi ci asamaan si mu leer nañ noonu la ñu gisee seen boroom ci ni ko yonante bi waxee ba defee mu yàqante ñoom wa an yaxtaqida ak mu fas ne ànd na xayral quroon naka ngeen jimaas yi as sahabatu mooy sahaba ya tumal na si na topp ña xam ne yàlla woon am ñoom si na